Ahmed Cissé dégg naa nga naan kali li ma bëggoon am naa ko mooy fexe ba Doro Gueye moytu ko fexe ba Waly moytu ko fexe ba jabaram génne ko moo tax si ay mbedd la doon live kon wéeroo sa yéene nga wax mais jàppal ne doo yàlla doo yénanti ba nga am suwe si nit ki yàlla sunu borom nangu suwe boobu tu es pour ma déstabiliser bu sénégalais yëpp méngoo woon di saaga sama ndey loolu je m'en bu sénégalais yëpp méngoo woon détesté ma loolu je tàpp tape mais fii sama famille ñu ngi continuer di ma bëgg taf ma fii seen xol damay ne alhamdulilahi rabbil alamin kon li nga ma yéene jàppal ni du mës a am ilaa yow mi diin merci miss Dior jarbat a jaaraama merci danga wax sa wax nga ne li ma bëggoon ci kali yépp am naa ko mooy fexe ba jaxase koog Doro Gueye man munoo ma jaxaseeg PDG Doro Gueye déedéet sa baay sa ndey ba sa àllaaxira buñ koy yëkkati woon sax jël tuunam ni dugal ci bant munoo ma jaxaseeg PDG Doro Gueye bu dee bëgg nga dégg dëgg Waly Ballago Seck waxi noppi démb laa mujj dem pour gis Waly heureusement bi ma ñëwee tombek dem na Allemagne dama ñëw soxnaam laa toogal muy soxna ay dara mu ne ma waalee ngi noonu di dem soxna dara ba ma ko fekkee mu toog dafa jug taxaw dafa jug taxaw pour te diir yar bu soxna ay dara àndal soxna Wally Seck c'est la première fois ma gis ko démb joxante moom lox mais dafa ma jox respect bu mot sëkk te li ma wax ñaari seede ngi fa woon dama ñëw nuyu soxna dara dafa jug taxaw ne ma chéri na nga def ñu commencé waxtaan mu ne ma waalee ngi noonu di dem Allemagne bu jigee Allemagne day dem Suisse ñu toog waxtaan presque ëpp na deux heures de temps man ak soxna ay dara soxna waali ak ñaari femme ba may ñibbi soxna ay dara ubbi saagam ne ma am xam naa waali bu la fekkoon fii day jël ne la jëlal taxi pour te dire kon tey boo nee jaxase nga pour famille waali sori ma patati patata kon yow t'as rien compris kon yow wéroo kon yow loolu moo nekkoon si objectif xaaral ma ñëw si ma fenal Kali après Wally écarté mais supposons sax tey bu waali jékki-jékki woon écarté Kali lan lay wàññi si Kali supposons bu amoon kon yow wéeru Wally Ballago Seck bu toogoon si tele mu téye micro mu ne Kaliphone Sall bul ma jegeti séance al même loolu bu amoon lan lay wàññi si Kali est-ce que Kali jour boobu day dee est-ce que ay wërsëgu kali day toog jour boobu dootul amati wërsëg est-ce que kali jour boobu dootul dox ci mbedd xam nga mënut nekk waxuma laak bu waali sax dul def loolu pour te dire sa xol bu bon bi nga amee sa xol wala kaana bi nga amee man dama gëm sama bopp waali balaago sek xam na kuy kalifon ñëw ma si waali balaago sek ne ko bisabilillah te bu ma ñëwoon si wetam di ko ne bisabilillah sax dina ubbi poosam ne am yàlla jox la parce que noonu la ko yàlla bindee kon boo yaakaaree boo toogee si réseaux sociaux sénégalais yépp ñëw toog di la déglu nga naan waali Kaliphone moo wax lii Kaliphone moo wax laa eh pour nga naan da ngay jaxase Kaliphone ak waali peine perdue peine perdue nee naa la réseaux sociaux laay waxee te lii dinañ ko dagg jox ko soxna ay dara dina ne dëgg la maa fekk soxna ay dara ci hôtelam mu toog moo mag yi ñaari jigéen ma ñëw dafa jóg taxaw pour te diir respect bu mu woon doomu aadama ne ma chéri na nga def parce que jàpp na ni waali Seck man frère la mu ne ma toogal ñu toog di waxtaan mu ne ma sawaay de mu ngi noonu di dem Allemagne ñu toog di waxtaan nee naa la ëpp na deux heures de temps bu muy jóg di am fu muy dem ñooy ànd mu ubbi saag bi ne ma am génne euro bu bëri ne ma teel waali boo ko fekkoon lii la lay defaral parce que xam naa kon boo taxawee naa li ma bëggoon mu joteeg waali réussir naa ko fen nga réussiroo te fii ak yombal xiyaa mënoo ko réussir beneen biit nga ne li nga fexe woon pour PDG dooru Gueye dootul wax ak man fen nga ku deglu sama live dem ak barki dem chaque jour maa ngi défendre PDG Doro Gueye kuy gis sama statut chaque jour maa ngi dugal photom maa ko tuddee doom c'est un grand frère jour bi nga toogee si réseaux sociaux yi di fen naan kali Doro Gueye PDG Doro Gueye téléphone am la na ma kar mu ne ma mon frère ma ne ko waaw mu ne ma bul lijjanti bul tontu kii lu muy wax yëpp xam naa ne day fen barki alxuraan ak àjjuma ji ñu jëm ma ne ah grand gis nga de kon yow PDG Dóoru Gueye moo njëkk xam danga toog pour yàq der kon beneen a ngi noonu kon li nga bëggoon amut parce que yëkkati na téléphone am woom ñaareel bi nga ne Kali dafa am jabaram euh, problème ak jabar ji ba muy live si ay mbedd man ku ma xam-xam fu ma toog ci biir France tamay live kon yow yaa ma suivre ñaata yoon balaa mayam sama jabar ji bu may live di live si mbedd di woon nit ñi ne métro yéegi nii mbedd Paris yéegi nii centre commercial yéegi nii ah fan yële may laay si mbedd bi nga ne sama jabar daf ma génne sama jabar sànq dama ko ko expliqué dafa ree da nga bëgg ma problème ak sama jabar bu yàlla tuddee dee am ak moom problème damay am moom problème ma ba fii ak may wax ak yow nii bi ma ko takkee ba léegi daf na ñaari at ak lu teg alhamdulilahi rabbil kenn dégguñu tey it day continuer kenn duñu dégg parce que moom xamul vie privée si ay réseaux sociaux li may nekk si réseaux sociaux di xeex di xuloo moom xoolu loolu nga ñam nekku si kon yow wéeroo demal nga sulli sa ndey andiwaat sa baay tegle leen ñoom ñëpp ñu ñaanal la pour nga jéem a déstabiliser mënoo am loolu kon t'as rien compris loolu moo la tax jóg ne xaaral ma déstabiliser sénégalais yi xaaral ma jaxase sénégalais yi man ma toog fee di ree man gambien bu bon bi peine perdue mënoo am loolu si man xamoo koy Kaliphone xanaa doomu daaf géto bi doomu banlieue bi doomu dalifor bi lu keneen wax si man dugg sa TikTok saaga ma wala leneen je m'en dégg naa junni yoon ñu may saaga mais fan la feeñ ci man fan fan nga gis kanamu kali ne lexu kali yi de néewi ndax saaga biñ ko saaga démb amut kon lu may daw bay daanu peine perdue li ma wax sama live kuy sénégalais kuy responsable loolu ngay wax xale bu jigéen bi problème am ak masali wala problème am ak keneen mën na ñëw wax ko ñëpp ba mu des euh, ba mu ba mu ba mu des yow parce que doo nit ku baax doo nit ku baax bu doon da nga toog si réseau sociaux yi di jàng alxuraan di yee askan wi di wax ak askan wi bu amee problème mu ñëw si yow mais yow boo toogee si réseau sociaux yi lan ngay wax jigéen booy tëdd ak moom nii ngay tëdd moom jigéen boo koy kii nii lay def patati patata ay garabu may koddal ak garabu may daanoo yooyu yow yow lool lan nga mën a jëriñ doomu aadama dem ba naan ay kàppoot dañ ko war a séddale si ay jàkk ak juma dem banaan lu bari ci alxuraan bi taaxuraan la di dem banaan yàlla ji day lépp lu ci bari alxuraan bi waxul dëgg yow ban nit mooy ñëw ci yow di la laaj xalaat ci problème bu mu am ci société bi xanaa nit ku amut ñaanu ndey nit ku amut ñaanu baay nit ku amul ñaanu ndey nit ku amut ñaanu baay mooy ñëw si yow di ko wax sa problème parce que yow en personne problème nga danga nga alku da nga alku parce que jàng alxuraan jàng alxuraan ba ne kat mosoo toog di wax nit ñi boo juumee si saar bi ni nga koy gàggantee booy julli nga juum nii ngay def du mosoo débat yooyu lan ngay débat booy daanoo booy juutal ak booy kattak booy ubbeeg parce que sa ndey ak sa baay loolu la ñu xam moo tax loolu ngay ñëw di woon askan wi pour te dire man mënoo ñaari salaamaaleykum sa ndey ba ca àllaaxira bu jugoon ñu jëlaat lëfam li joxaat ko ko ba mu beesaa tàq mënut si man franc waxuma laa ci yow yow xam nga loolu kañ ngay mën si man dara nga def loo xamante ni dootuma taal sama tiktok ok ñu ne Kali si sa génne na ko réseau yi mais ñëw di wax ay waxu dof di aara bajjal eh, patati pata peine perdue beneen bi it nga ñëw nga laal si xale bu jigéen boobu mi Mamy Evans kooku xale bu am yar la xale bu nekk taalibe liggéey la xam ñi ko xam Sénégal yëpp xam nañ ko entrepreneur la day liggéey moo gën sa ndey gën sa baay parce que dugg na si laay bi démb àndut ak yow gis-gis nga ne danga koy saaga li la ñuy waxati nga ne dangay ngay jigéen di attaquer jigéen fii ban jigéen a fi gën beneen jigéen gis-gisam la wax gis-gisam la wax nga ne dañ ko jox dix millions liggéeykat la parce que dafay def ay foire mu dem wuti ay nit yu ko mën a taxaw ñu jox ko ko mu liggéey doo génnee vidéo taatu neenam doo génnee ojo fu muy wax ak góor comme da mën a duul da mën a sos nga naan dinaa ñëw si moom ñu naan ay baal ko kenn du la ne baal ko xam nga tey Mami Evans fan lay rusee nga ñëw te taatu neenam si réseaux sociaux yi comme ni nga ne yow am nga taatu neen Laloucha da laa filmé yaa ko wax Mami Evans kenn du am taatu neenam parce que xale bu am yar la xale bu jullite xale bu gën donc fii mënoo fi napp nit wala wax ay nit di arabal nit yooyu ragal la amul sénégalais booy napp mu ragal la amut amul sénégalais booy napp mu ragal la amul amul bu dee yenn nit dañuy gis ne que way Massaly dafa am problème ak Sonko ngay ñëw di branché wu si ñoom naan wax ne li Sonko yow ñaata yoon nga wax si Ousmane Sonko ñaata yoon nga wax si Ousmane Sonko Ahmed Cissé ba ci élection yi barki démb da nga génne kaamel nga waat ne Amadou Ba mooy gagné sa pexe bu juboon ñoom Ousmane Sonko duñu dem au pouvoir yaa gën a yées ñëpp mais c'est-à-dire ñenn ñu bëri ñu nekk si Pastef ay dof lañu da ngay ñëw mbubboo euh, euh, Sonko rek mbubboo Pastef après ñu gis woy Sonko yow li nga fi yàq Sonko dafa am say vidéo ngi fi te toog naan Sonko ak saar Sarr Sonko dëbb na si gënn gi da ko fàtte Sonko dem Sweet Beauté da nga ko fàtte nga toog fii naan Sonko sa drapo parti bi égal drapeau fitna drapeau rebelle da nga fàtte loolu léegi tu viens tey di sang sa bopp naan Massaly da doon attaqué Sonko yow da bàyyi sa bopp pour sa victimiser pour yenn dof yi nee naa la ñëw ànd ak Sonko ñëw di la si pot kon wéeroo xale bu jigéen bii nga bëgg défendre bu doon ko baax la du la xam bay wax yow parce que yaa gën a yées sur bu yaakaare ne day xaawi sutura Mamadou Lamine Massaly moom la suturaam xaaweeku parce que moom lañ newoon mu képp bajoom bi ba mu am jëkkër defu ko moo dem saam lëfam li bu si amoon trent doom góor gi du am lu muy rus moom moom moo déggul laabaan moom lañu joxul may bu njëkk moom la jëkkëram tegul si njeganaay bi xaalis de kontaan naa si nu ma la gisee démb si guddi deret bu bari bi nga tuur moom te femme bu bon la da ngay toog fi naan da koy défendre rek yooyu ñun duñ ko défendre même buñ ko naroon défendre duñ ko défendre parce que caga ak caga ñoo ñoo yem te dinañ fi dugal ay nit ñu seede leen si ndaw sii lu tax bu toogee tey masali femme bi ñëw accusé ne masali yaa moom doom bii Massaly taxaw feene bu ma déggatee loolu nga xam parce que femme bi jubut du ku baax amut benn góor guy ñëw di tëdd jigéen di sentir ne que fii muy tëdd junni góor jaar nañ fi góor boobu doyal na sëkk sëkk lay doyal sëkk sëkk sëkk sëkk lay doyal jigéen yaa war a am fulla yaa war am fayda du góor bu ñëw rek nga tëdd benn ngi nii moo tax boo ubbee lu mu yor quatre plan xañ na ci biir moo tax beneen ku dul masali sax mënu la respecté tey ñu bari góor dofunu boo leen ne am laalal dañuy laal mais fi ñuy laal mu leer la ne ka maar di dem nga ko jox ko beneen moomoo di it ñu ngi koy xam àllarba yaa ngi koy jox beneen tafaay it mu ngi koy xam bàyyi la ci biir moom lu ko soxal ak mooy nag génnam bi tooy boo ko doon jox téeméeri Momadou moom gàttam nekku si kon yow jigéen bi yaa war a doon nit xam li yàlla def si jigéen fu mu teg jigéen xam ne jigéenu tey nga dëkk si néegu baraat du gàcce jigéenu tey ngay wodd sër amoo loo lekk du gàcce mais yéen tey bëgg ngeen xeesal ba ne tat bëgg ngeen dawal oto bëgg ngeen dégg-dégg naan way damay dem di bàyyi te xëyu leen gontu leen lu ngeen ko yaakaar di dem si xale yu góor yi di taxawaalu ba jëleen fi tey lu ngeen fi jëlee ngeen bëgg ñëw tey di victimiser wu ñiy toog seen pegg ndey yi gisuñu leen si TikTok bi ñuy victimiser wu kon maman li nga bëggoon am nga ko mooy siiw mooy ay di di live naan déw katt na la di ko continuer di dégg sa yaay fee mu tëdd alaxira du bég si yow parce que yaa waroon suturaal sa bopp suturaal sa ndey parce que dañuy naan bu euh, est-ce jee ko yar boo amoon yaru sa ndey doo dem di taxawaalu ji ba lii di la di la si fekk continue du Ahmed Cissé mooy sa mooy sa sa avocat Ahmed Cissé mooy sa avocat moo pare ne day yàq doomu sénégalais yi nañ ñëw na saf na ñëw na saf léegi balaa boobu Fatou Bathily bi xaar ma woo ko gars yi tapote leen s'il vous plaît guddi na il deux heures moins mais gars yi dinañ ko daggati mhm. euh, ñu déglu kii lu mu wax alo alo waaw Fatou. waaw yaa si jàmm. yaa may dégg. maa ngi lay dégg yaa ngi may dégg. maa ngi lay dégg waaw ça va. waaw bisimilah maman bi da ko xam. maman xam naa ko. waaw Thiès naa ko xamee wala. Thiès nga ko xamee léegi léegi soirée ma may ma may ma tuuti. dama ma ci wax sax ndax man yi problème démb ba tey. waaw ñu ngi lay déglu loo xam ci problème bi lan. Oh. waaw. dama koy xam Thiès laa ko xamee woon ñu gisante Seck Diam voilà léegi benn jour mu ne ma dafa ëmb fekk mosoon na ma wax turu Massaly ma ne ko Massaly rek jabaram sama cousine la parce que lépp lépp leer day leer. mu ne ma damay génn ak moom xaw ma lan affaire yooyu sama yoon nekku ci un jour mu ëmb. ba ma waxee ba mu nee dafa ëmb turu keneen la ma wax. turu keneen la la jox ba mu nee dafa ëmb. fekk turu keneen la ma jox. du yéen a ngi dégg parce que bëgguma dugg ci du yéen a ngi a ngi may ma tuuti may ma may ma allo allo keneen la ma jox allo. boobu maa ma xam ko. allo yaa may dégg allo. waaw ne quitte pas danga may déglu tuuti xaaral. sénégalais du yéen a ngi dégg. kii di wax nii faatula la tudd démb tudd lañ ko si tur kon maman xam na femme bi bu baax xamante nu ay xarit lañu nee na maman ba mu ëmbee turu keneen la ko ne moo ma ëmbal déglu leen bu baax du samay wax moo ko wax te elle assume xamante naa kii pour ngeen déglu waaw waaw xaara xaara xaara ma def parleur ne quitte pas xaar dañuy bëgg mu leen rek na kit paa kii jigéen la di wax te xaritu maman la nee na ba maman ëmbee daf ko tuddal beneen tur ëlbati ko ñëwaat tuddalaat ko turu masali kon y'a problème allo ok xaar xaar xaar na kit pa xaar dam la bug def haut-parleur si baaful bi allo. Ah, xaritu mama nga. allo. yaa ngi may dégg. waaw ma ne dama bëgg nga wax sénégalais yi maman kañ nga ko xam ak seen xaritoo depuis fan la ak ñaata ak ngeen xaritoo ak problème bi nu mu demee. Ah, gestantu sa réseau bi sa bi sa réseau bi day daw de xaar ma rappelé la xaar ma faatu allo dama bëgg nga expliquer Sénégalais di la déglu foog muy leer kañ nga xamante ak maman ak seen ànd bi ñaata at la def ak ba muy ëmb ak yooyu waaw période boobu ay quoi comme deux est-ce que du ay deux wallaahi mënumatuma kii est-ce que du ay deux mille seize deux mille dix-sept jamono mu daan ñëw Thiès ba xam ay deux mille seize jamono bi ma koy xam daal may période bi nga xam ne après ci lay ëmb ay 2016 2017 xamatuma période boobu laa xam mama ma xam ko ñu sekk jàmbu maag moom te nag xam tax xam tax wax ji naqari ma allo yaa ngi may yoo yow rek la ñuy déglu yow rek la ñuy déglu. allo. ñu ngi lay dégg bu baax a baax a baax a baax. waaw li tax ma dugg ci sax lañ ma fenal waxal ne man Massaly sànq nag na ñu xam naa Massaly bu baax ba ma ko woowee loolu même li ma wax la wax Massaly musumaa taxaw jàkkaarloog moom ànd ak kàppu ci Massaly ne ko maman am na luñ lay jiiñ musul am Massaly ki mu doon sëyal laa xam mu nekk sama mbokk ñu tuddee ma yaayam mais musuma jàkkaarloog Massaly dem ànd ak kàppu comme li ko pinam boobu wax sànq ne man maa ànd ak kàppu dem ci Massaly ne ko am na luñ lay jiin xaw ma loolu du dëgg Massaly léegi la ko seede musuma jàkkaarloog Massaly di ko wax loolu wallaahi moom xooma lu mu waxanteeg Massaly ba Massaly mer xooma la kàppo ci boppam wala kàppo jour ba muy dem kër Massaly man sax laa laaj ne ma Massaly ban côté la dëkk xaw ma ma ne ko côté kër ma daaro la dëkk kër ma daaro foofu la dëkk benn këram la buñ nee tool tool la kër temps bu am piscine sama fa la dëkkoon damay wax lu leer laay wax tool la woon en même temps këram la kàppo ba muy dem kër Massaly la yàlla ma dafa ne ma rek Massaly laa soxla te mas te kàppo it encore une fois ba muy jël masali jox joxuma ko ko boobu yoolu ma sax numéro Massaly ñoom la nax piégé leen jël numéro Massaly wo Massaly mais musuma jox kàppo numéro Massaly te musuma àndandooy kàppo ci Massaly Massaly toog yàllaa ma tiim mama jaral ma fen keneen jaral may fen jigéen laa yéenewu ma ko lu bon wax naa ko léegi Massaly mais li ñuy wax bu tudd ma ci moom a naqari pour wax ji ne leer amul dara lu ma koy yéene luñ ma ci buñ ma ci tudd woon du ma ci wax démb ba tey maa ngi seetaan live bi mais sama yoon nekku ci mais liñ ma ci boole ba nag xam naa ñëw na suñu kër baalu ma ak ak ban lii wax waa ma tëbali ko boobu ay ree dama sax jàpp histoire moom a amee ku la neex fenal li ngay fen waxal la man yàlla moo ma tiim maman bañ jotee mu ñëw ne ma parce que maman ma wax benn affaire de mais da woon na ma ci dëgg la ndax nee na man maa ko wax jabalu masal waaye ba après wallaahi danaa ñëw suñu kër gii mu ki ba mu demee ba jaaxle moo di mooy ñëw juboowaat ak man mere woon na ma si kay mere woon na ma si mais moo daay ñëwaat suñu kër ma ne ko ah jigéen laa yërëm naa li la dal de yéenewu ma la ko man maa ko wax loo ma ne see def loo xam ni neexu la maa ngi jéggalu parce que man yéenewu ma la lii parce que jigéen laa loolu ma maa ko wax wax ko mu am am na boo xam benn jëkkëru sëram moo ko indi fii suñu kër gii temps yi mi ngi jeex ñuul kukk ñëw fi seet si ma barki Seydina Muhammad waa léegi koo mere ak ku la donc looy ñëwaatee ci moom di waxtaanaat ak moom ngay jaaxle ñëw di ko expliquer te moom nee na daf ma mere parce que man maa ko jaxase le koo mere rek koy da nga koy ba wala nga dem jëflanteeg moom leneen mais moom après dalaa ñëw fii ñu sekk jàmm maa ngi moom ñu gisante di déglante parfois dafa may woo téléphone ma woo ko ñuy waxtaan nëbbu ma la woon ma sekk ak moom jàmm ba am na fan yoo xam ne temps yii ñëw na Thiès woo ma ñuy déggante téléphone fekk ma war a dem Dakar mu ne ma maskal masali laay ñëw ba jour mu wax man bay jooy ba ma yërëm ko parce que amul dara lu ma ko yéenalu man parce que man jigéen laa lépp lu may wax day leer mu woo mu wax ak man bay jooy ndeysaan ma ne ko maman lii nattu la lu am sa doom bi jël ko comme boobu ba tey yaa ngi ko téye muñal parce que àdduna fii lu ne xew na fi xam nga kan moo kan moo kan moo lay jëriñ ëllëg quoi wax muy wax bay jooy mu ne ma fii laa ñëw waxaat ak Lamine mais Lamine nanguwul xale bi mu ne ko mais da ngay muñ mais bu ñu wax seeni wax créé seeni wax nee naa maa dem ca Masalik waxal ak mooma Capo ak El Capo lii ak lii ak laa loolu moo ma ci naqari man Masalik musuma jàkkaarloo ma wax ko lii mais ba mu waxe moom mo wax leneen te ka mu wax du ma tudd parce que kooku jàmm laa sikk ak moom duma ma tooñ te awuma intérêt fenal ko mais ku jur ku jurul du ma ne Lamine juru ko duma ma ne keneen juru parce que yàlla rek moo xam lépp lu ma wax day leer xaw ma ku jur ak mais nit moom li tax mu waxoon loolu xëy na moom moo ko xam moom carrément xam na dëgg la kan moo jur papa euh, xaw ma doomam mais lépp la ba nee moo tax nit parfois booy wax muy muy kafak wala am leneen loo loo ci bëgg wala dara rek xamal la ngay wax parce que wax dafa doy waar. te man bu doon man kese kese kese sax mënoon na cee ba kii mais kàppoo ma ca dugg kàppoo moo ko jaraloon mu sonn jël tànkam dem ba ca masali wax ak moom lool laa ci amoon lu may expliquer. léegi sénégalais dañ bëggoon xam yow ban moment maman ñëw ne la dafa ëmb beneen turu nit moo ko ëmbal ba muy am ñaari weer la benn weer ñetti weer. ñoo loolu boobu dañ doon ànd di waxtaan parfois mu ñëw Thiès wooma fii ñu sekk jàmm daan àndandoo xam nga affaire yooyu ñu sekk jàmm am na sama benn xarit boo xam dana am tooñ naan ñaar ñu mën a ànd ànd ku dëxët affaire yooyu noonu. jàmm moom dafa ñëw wax dëgg du nit boo xam ne la borom xol bu rafet la man jàppee woon ko ci loolu yàlla rek tax may wax ma jàppee ko ci loolu. et ku nekk ak sa vie ku nekk li ngay lijjanti loolu ak ku nekk la ngay ne loolu yow la concerné lijjanti wu ma loolu mais man la ma wanoon may ànd ak moom ci loolu. dégg nga sama li ma la laaj est-ce que dégg nga ko ak di kii ànduloo woon ak koo na moom ko neex boo waaw xaw ma nu ko mën a expliquer dafa toppoon xelam. parce que parfois nit ku nekk parfois mën nga def dara dem ak sa xel mais moom xëy na ba muy wax loolu man période bi ma koy xam déggoo la ay 2015 2017 2018 jàppatuma sax kañ la wallaahi. mais peut-être xam naa ne daal ba ma koy xam ba ma koy xam période boobu même pas un mois ci la ne ma dama ëmb. man bu ma njëkkee wax sax dama ëmb ay ree dama jàpp gëwuma ko woon wallaahi gëwuma ko woon mais après kàppoo laa waxtaan ak mu ne ma maman dafa ëmb ba kàppoo wax am na yoo xam ni ba dem <laughs> ndeysaan ma ne bu noppee rek danga koy bàyyi. kàppoo yëkk na ma ne maman am na beneen doom ma ne ko loolu du dëgg maman kooku juru ko. mun na ma Dakar laa doon dem un jour dajeeg moom ma yóbbaale ko ñuy waxtaan mu ne ma foofu laa xamante ne maman ma ne ko ah dëgg la mu xam maman ma xam maman ñu ñëpp ñu sekk jàmm mais moom kàppoo moom moo ma njëkkaat waxaat ne ma moom de keneen la ko jiiñ après mu ne ba jour boobu sax man tëbali naa ci kàppoo ma ne ko yow it góor gu seytaane nga xaw ma kàppoo mooy dégg xaw ma de bu jotee moom ba saa ma ne ko ak sa yow it yow dugg ci problème bi wax ci la ngay wax bëgg ma dugal ma ne ko génne leen ma ci seen yii après man ca laa ca pare. capot policier bi. mooy capot policier xaw ma mu may dégg xaw ma déggoo ma laa xamoon. après tëpp xuloo naa ci sax ak moom ma ko ba nga xamee ne góor nga di dugg ci ay détails di wax fii di wax fee ma man génne ma ci say wax. mu ne ma ba un jour sax yaay maman ñëw kër capot fi mu dëkkoon noonu euh, xaw ma euh, mbuur de xaw ma voilà ñu woo ma téléphone bu bëgg ma wax quoi ma ne ma ne ma yow te du diw la waxoon bi. ba joueur ma saa saaroo ko sëbali ko ba ne ko eh génn ma ci seen yii yow ba nga xamee ne yii da koy def ba pare ñëw fii di wax fii man da nga ma génn ci say wax Massaly laaj ko mosuñoo taxaw loolu jàkkaarloo ci di wax xam Massaly sax boobu ñu sax gisante lu bëri mosul taxaw ñu jàkkaarloo kon buñu ne man maa dem ca Massaly ànd ak kàpp kàpp mosuma ànd ak moom ci Massaly a kàpp ba muy dem kër Massaly dafa ne ma kër Massaly laa jëm boobu xaw ma sax affaire maman après la ma expliqué loolu laa ci xam ok léegi yow daal li ñu tudd sa tur démb da nga fa mel ni dañoo jaxase carte gi tudd sa tur loo deful. moo moo ma metti parce que bu ñu tudd woon sama tur man Massaly yi may sekk moom laa sekk moom jàmm laa ak moom bañ na ko papa sax laa koy woowee mu nekk nit ku baax borom xol bu rafet fu ma gis est-ce que sax la may woowee. fu ma gis dañuy tooñal di léegi nag dañoo déggante mu ne ma yow yaa dégg so ma ne ko loola ma naqari man ku ma waxoon dinaa mos a toog bi may dégg ci ay coow yi réseaux sociaux du ma ko mos a gëm sama àdduna ndax man xaw ma ko. après mu ne ma waxal ma ne ko dinaa wax sax parce que lu ma ci naqari démb sëram dugg na wax naa faaj bàcc ni léegi après ñoo ñoo ñoo xooma lana lana lan ba pare lu ma tamit mu fenal ne man maa ñëw ba foofu di jooy di baalu ak man maa bat ki Seydina Muhammad yàlla ma tiim après problème bi am dégg ma ne la jigéen boo ne dalaa fenal waaye léegi lay ñëwaat seen kër di ko seet si waat mu jaaxle maman même bu day toog bëgg waxtaan sax day di téléphone am même daaw la woo na ma fi ñëw kër Lamine laaj ko Lamine bu dee damay fen mu ne ma dafa ñëwoon di waxtaanaat ak moom pour bëgg mu mu kii mu jàngu xale bi. ba juba da doon jooy ba juba ndeysaan sama yaram da daan daw wallaahi ma ne ko muñal muñal comme muñ nga ko ba fii yaa ngi nekkaat sa bopp gérer sa bopp muñal yooyu muñal loolu yàgg na fee am. ba mu ne doom ji Seydina xuma kii école bi Mariama Niass la ko doon jàngee kon xam nga ne xam naa loolu Mariama Niass la doon jàngee affaire yooyu da waroon a jëlit période boobu noonu mu ñibbisi mais man buñ ma duggali woon ci seeni wax du ma sama yoon du ci ne ndax man coow li sax fàtte woon naa ko mais raqam warta woote it di wax Fatou Ba ci lii kàppoo lii raqari tamit tamit woote waat ñu ne man maa dem ba ca masale ànd a kàppoo man li may yàggat yàggat yi dem ci masale naan ko ay ok yaakaar naa ne li nga wax leer gum na dañ lay bàyyi nga noppalu le temps am na keneen ku bëgg a témoigner ku mhm. góor ku xamoon euh, maman bi mhm, bëgg na si wax léegi nekkal di seetaan live bi rek si kanam bu dee soxla naa naa la waat incha allah merci mhm. donc gars yi ñoo ko déggandoo kii mooy Fatou Bathily démb dañ ko woo pa démb dañoo tudd turam ci bagage yi moom Fatou Bathily bi xaritu maman bii la xale bu jigéen bii nga xam ne moom moo am doom te ba léegi xamul kan moo ko biiral kii ba mu ko déggee it li mu wax dégg ngeen ko nee na moom maman ñoo doon ànd ba mu ëmbee maman daf ko yëgal ne ko faatu man de dama nekk biir mu ne ko ah lay wax nii mu ne ko waaw faatu ne ko euh, maman ne ko euh, faatu ne ko ku la biiral mu ne ko diw mais waxuloon turu Massaly waxuloon turu Massaly ñu dem ba ci biir it mu ñëwaat di tudd turu Massaly loolu mooy maman bi moo xamul fu muy taxaw comme nu ko policier bi waxoon démb le temps ngeen di tapoter yéen ñi nga xam ne da ngeen may suivre waxuma ñi nga xam ne dañ ñëw rek di seetaan ci kaw yéen ñi nga xam ne da may suivre du ngeen fay dara seen téléphone rek da ngeen di jël di tapoter rek sauver bi am na keneen ku góor ku xam maman bi jokkoon nañu it daf si bëggoon a wax maman bi it dégg naa du xale bii rek mooy première doomam am na beneen doom bu dul xale bi te même cas la kooku it xamul papam ba léegi pour muy leer te maman ne maman Massaly bañ a affaire bi mais ñun xam nañ ne moom la ba tax na sax ñun famille bi pare nañu pour jël xale bi wutal ko këyit Ahmed Cissé loolu la waxoon nee na maman loolu la ko wax raqu masale bi wet dina ba mu set wit ne mësul wax loolu maman daane woon day dugg si live bi mais heure bi xay na tëdd na mais maman woowoon na ko sànq ba jot na ko enregistré as tuut ngeen déglu fu maman di weddee loolu ba maman def ko doon ñaan xaalis moom xale bu góor bi raqu masali ne heureusement musu ko yónnee parce que bu ko yónnee woon xaalis dina mel ni li masali jur xale bi moom rakku masali mu ngi toppatoo xale bi maman bi yàgg na woo rakku masali di ko ne may ma foofu sàngam mais rakku masali musu ko yónnee te pourtant Ahmed Cissé dafa ne rakku masali mu ngi doon yónnee maman bi xaalis pour ne ñoom rek na nañu xale bi ba ci tabaski bi sax xale bi foofu la tabaski c'est pas vrai kon luy leer na leer Ahmed Cissé boo fareek maman nga xam ak maman ay atiyat bul ñëw fii di lëre sénégalais yi pour sénégalais yi commencé naa dañuy jéppi ki nga xamante ni mooy masali wala leneen bu jëppi de am na maman bi jéppi boppam moom mii bàyyi fu mu doon toog peggu ndeyam déplacé wu ba fekk ji góor fu mu nekk ba góor def ko lu muy def góor gi deful dara moom jigéen moo amul fulla moo amul fayda buñ kenn rey bu doon tey oustaz nga wala da ngay ñoddi ne xam nga diine waroon nga ko ne hee yow jigéen yaa waratoon dëgg sa tànk di seeti góor ba góor def la lii yaa waroon toog ba góor andi goro jox sa papa wala sa yaay mais ngay ñëw tey di tax masali masali caga la masali caga bu masali nekkee caga kii dem ubbil ko mu dugal moo gën a nekk caga parce que bu keppoon masali di duggal bu leen ñu rey bu leen ñu sonal ok léegi ok allo allo allo allo allo bu dee yaa ngi dégg ñu ngi lay dégg alo bon kii di woote nii mooy ki nga xamante ni dafa xam gel bi da si bëgg a wax mooy woote nii ñu déglu audio bi. o le problème c'est pas ça parce que man dama doon liggéey dama doon liggéey wàcc yaa ngi comprendre Lamine envoyé ma benn message mu envoyé ma benn message comme si genre que ni man. maa leen ni yow mama maa ni man maa ni mama man xam naa ni Lamine moo ko def man xam naa ni la. déglu leen kii di wax ni rakku masali la mu ngi France Ahmed Cissé dafa noon rakku masali bi dafa reconnaître woon ne xale bi doomu Massaly la ba moom en personne pare na pour wutal xale bi këyit kii weddi na ko ba mu set wit kon mooy li ñuy wax seen duuli seen feni bu ngeen ñëwee si kaw naan raqu masali pare na pour jël xale bi jox ko tur jox ko sant c'est pas vrai kooku mooy wax ak neeg maman pour ne du dëgg lan ngay demee si Ahmed Cissé ne man maa ne damay jël xale bi jox ko sant ak tur c'est pas vrai maman ngi déglu ne ko wax nga dëgg fen rek na leer yëpp na leer ñu déglu. non le problème c'est pas ça parce que man dama doon liggéey dama doon liggéey wàcc yaa ngi comprendre Lamine envoyé ma benn message. mu envoyé benn message comme si genre que ni man maa ni yow mama maa leen ni man maa ni mama man xam naa ni Lamine moo ko def man xam naa ni Lamine moo ko def mais garaawul kaay ma déclaré doom bi affaire yoonoon kër ko man mama man am na yoo xam ne man man man. waa léegi waa déggoo li ma la wax. du dégg ngeen mu ngi leer Ahmed Cissé live am démb dafa ni frèreul Massaly woon na ne ko ñun famille bi reconnaître nañu xale bi que man en personne le petit frère de Massaly jël naa décision ñëw jël xale bi porter sama nom dinaa ko wutal këyit loolu la waxoonu pas xale bu góor bi nee na ko maman loolu mësuma la ko wax mësul am. c'est pas ça parce que man dama doon liggéey dama doon liggéey wàcc yaa ngi comprendre Lamine envoyé ma benn message mu envoyé ma benn message comme si genre que ni man. maa leen ni yow mama maa leen ni man maa leen ni mama man xam naa ni Lamine moo ko def man xam naa ni Lamine moo ko def mais garaawul kaay ma déclaré doom bi affaire yoonoon kër ko man mama man am na yoo xam ne man man man waa léegi ba waa léegi waa déggoo ma la wax waa loolu dafa jar xuloo wala mu jar xeex dafa vocal dinaa la yónnee vocal nga ko ko mu leer nañ ko amul problème. loolu kay amul problème jarul sikki sàkk ak loo xam ne loo def la. voilà kon jeex na mais defoon sax xanaa di nga assumé waxuma nag loo xam ne defoo ma ñàkk sama ndey ak sama baay su ma ko defoon ma assumé ko. billahi wallahi wa tallaahi loolu su ma ko defoon ma taxoon ne lii man maa ko def. barke ak man dama bokk ak moom ba pare di ko yàq te fu ne défendre naa ko fa yow xam nga dara te man yow yàgg yow li yàgg nga koo bëgg a def ma ne la maman yee. ma ne ko da nga wax ma wax ak man ba barki naa la. ko man naa la am na man na la am na naa ci waxtaan ñoom ñoom bu ñu la mënee revenir ñu revenir man la lii du sama problème problème mu Lamine yow ak Lamine. man na ko dina man na dinaa woo Ndeye Mary léegi ma waxtaan na man li may taxaw naan non maman xam naa ne Lamine moo def lii wala Lamine moo def la man Amnesty dégg naa mu ngi toog si live bi di ko foo xam ne nga xam ne Amnesty boo boo jox ay information wala moom boo koy wax nee ko moom wax li xam ne yaa ko def mais lii non non wala mu non non non Cheikh Ahmed Cissé ah, man de damaa toog léegi ñu ne ma Cheikh Ahmed nee na Abdou Abdou Abdou moo ne pare na pour déclarer pare na pour déclarer doom ji parce que moom xam na ni magam moo ko def mais attends non waaw baax na damay naan astafirullah dinaa woo léegi si Ami Cissé noonu la génne ci problème bi parce que problème bi du yow ak man. man dama bëgg mu la. voilà maman man dama la daan nga fi toog di problème xaalis maman lan moo tax daaw ma la yónnee xaalis ak man lan laa la wax lu ma la wax yow. man daal maman parce que lii très trace laa ci bañ. parce que la ko fii. fii ngay bañ an ah, ku nekk ak sa ku rek ngay wax yaa ma toog di ma wax par ma ne la am li may bañ te xoolal tey su ma doon jël xaalis te loolu dinaa la dinaa léegi amul problème ko vocal léegi nga jël ko transféré amul amul benn problème man la vocal ne la Abdou Massaly dinaa dem ok kon Bintuloo yow mii ma muyteeg yaa ngi seetaan kii maman la wala du maman man jomb naa ñëw teg fii audio ne la fekk du maman maman si boppam mu ngi seetaan live xam ne ni kii moo doon discuter petit frère Massaly yaa ngi dégg mu ngi naan xale bu góor man aw ma yow problème. ngeen bëgg taxaw naan du ma ma ngeen teg ko fan ngeen teg ko fan.